moo ban. Modou mën na bëre ak Balla Gaye 2 pourquoi pas. pour lu tax loolu. waaw mais làmb la. jéem a sauver bi ko. waaw xam nga tey dama ni Modou tey bu sañoon bu bëree ba bàyyi aji màkka màkk kenn du fa yóbbaale bor. te digganteem ak Balla Gaye bor dox na ci. ndax bu demee màkk yóbbaale defatu Balla Gaye de bu ñëwee mënut a dégg alaaji xaaj lay dégg xaaj. alaaji ju ci la yem ànd parce que dafa yóbbaale bor. kon est-ce que du ñaari bor koy xaar parce que bee nañ combat jànq la yàggees na koo dox muy yàqu mook tafaatin masta am nit ñi dañ ko amateur dañ ko bëgg seetaan bee itam nee nga bor la ndax bal da koo daan deux fois. xam kon est-ce que du ñaari bor kon la yóbbaale. làmb ji dafa am configuration léegi bu mu tëddee il faut gars yi comprendre ne lan moo ko jur ak lan moo ko indi. Babacar làmbi Sénégal dafa toog vingt ans amul ténor bu bees. les mêmes ténors ñooy bëri seen bi Lac de Guiers Modou Lo deux fois Eumeu Sène Modou Lo deux fois Bombardier bi euh, Tyson Tyson Yékini maanaam le mal dafa dafa yàgg. Ah, depuis 2000. booy yi waroon ñëw ñu ci bëri dañu tag am na ñoo xam ne sax fa seen carrière jaaree parce que mayuñu ñu woon opportunité mag ñoo ñu mayuñu au lieu ñu mayoon loon opportunité ñu dugg dañu doon préféré bëri wàcc seen biir hmm. tey un champion mel ni Ousmane Diop lu ko gaaree. ma yeggul sur le cercle des VIP ak keneen ak keneen Antoine Bakhoum Paul Maurice keneen ak keneen ak keneen maanaam dañoo amoon problème boobu. waa xaddi gerte dem yoonam waaw ñoom Malick jamono tukki mm-hmm. maanaam ñoom Malick ñaa bàyyi. Mm, loolu moo indi sa problème la mais tey dafa am xale yoo xam ne dañoo sës. ci mag ñi. waaw am na yu leen sëkkatal leen éviter tay konteel ku ci Cité biir ku ci melni Francesco dafa Kucing melni ci ku ci melni Thiès Kucing na pa tek na ben pa ku ci mel ni Reug Reug dafa momit tay bul faté ni corias jege na donc wa waaw ñoom Gris 2 sax ñom ñoom ci waxuma ñooñu sax tay pour ñaari kay kaw Tafatine ak kaw Franc moo tax may wax Tafatine tollatul ci lamb fu ñu naan ko diw may chance. Tafa tollul foofu déedéet. waaw dégg wa lolu am. dafa dafa bëreeg cette cette génération là ñom ñep xejna amna équation bu jaar ci yona moy l'équation Ama balde tay moo motax dafa arrière dem jël technicien man ma ne keroog koy jël dama ko ne c'est un combat sans gloire mm-hmm. même boo ko daanee c'est un combat sans gloire tey Tapha tey ñi ne ci kaw ñëpp war na mën a bëreeg moom ñi sës ci moom ñëpp war na mën a bëreeg ñoom parce que foofu la làmbam toll mooy ñi maasul yëpp ci làmb mos nañu gloire ba mu des moom. mais Tapha boo xoolee buur pourtant bëri na ak ñëpp ba mu des Modou Lo ak Gris Bordeaux te moo Gris est-ce que dinañ bëri. moo tax man la tolluwul fu ñu naan voilà xam nga tey bu ñaan naan revanche revanche xam nga tey ku mel ni Tapha Tine yow Babacar gëmoo ne ko tey Tapha fi mu toll dina delluwaat laaj revanche ci Lac de Guiers 2. ah non Tapha kay la mu wax leer na. waaw combat royal ba lay wër. waa kay Modou lay Modou loolu tax man la mbir bi dafay am fu muy na xarit Modou dafay bëre ak moom beneen bi ci des Modou beneen option la am mooy bu ko neexee ne damay sauver sama honneur war ma ragg sama ginnaaw sama diggante ak Balla Gaye loolu c'est son droit le plus absolu bu ñu fàttali ni Yékini bëri na fekk Bombardier ñaata yoon. lu mu yàq seen carrière parce que mbër dafa am gàkk-gàkk boo xam ne mënu ko yóbbaale te Modou Lo pour mu yóbbaale gàkk-gàkk ma diggante ak Balla Gaye 2 ça ça serait te te dans la même affaire c'est le moment Yves ou jamais salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sutub maram jiin bàyyi maam maram Njaay réew maa ngi may soow te ko mi soow booba danga bàyyi ndey ak sa njaay maa yàgg ci coow ndaara yàgg na